remercier d'abord la délégation du Sénégal bi nga xam tey ñu ànd ak ñun ci liggéey bi am solo bi nga xam moom doon def parce que bu ñu wax évaluation du comité qui est en charge l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles c'est-à-dire ñu fexe ba Sénégal bi nga xam ne ratifié convention boobu mooy jigéen ñi ñu fexe ba li nga xam ne moo leen di utale ak ak ñi nga xam ne dañu war a am ci li nga xam ne mooy li nga xam ne état moom la généré li nga xam ne mooy seen ay droit seen àq ak seen yelleef ak seen taxawaay ci askan bi ñu mën ko dëgëral loolu mooy principe bi nga xam ne moom la convention bi tënk je pense convention bi ñu ko signé yàgg na te chaque ak quatre ans dañu évaluer tous les pays tous les états partis dañu leen évaluer pour xam fan lañ toll ci mise en œuvre convention boo xam ne ratifié la CEDEF convention bu am solo la parce que déjà defe Sénégal on est à l'aise sur ces questions xam nañ ne Sénégal on a avancé on a avancé avancé nañu ci des femmes avancé nañu ci la promotion de la condition féminine et partout dans le monde dañu fier pour taxaw wax li Sénégal def ci loolu ñu am nag deux lois majeures la première loi de naa loi bi ci ëpp solo mooy la loi sur la parité pour renforcer le positionnement des femmes au sein de la gouvernance locale au sein des des des institutions yi nga xam ne mooy assemblée nationale ak conseil économique social environnemental mais aussi dans le gouvernement du Sénégal wax naa ko yi majeur na parce que dëgg la xëy na nombre de femmes yi nekk dans le gouvernement bariwul waaye postes yi ñu am na par rapport ak postes yi ñu amul bu njëkk ba le ministre des affaires étrangères est une femme le ministre de la fonction publique est une femme le ministre de la jeunesse est aussi la am na lu ci des ba léegi nag parce que wax naa ko bërki démb nee naa ci élection locale yi liste yëpp balaa ñu leen di valider dafay nekk di liste paritaire waaye li ëpp solo aussi mooy bureau yi nga xam ne gérer commune yi il faut que ces listes ces bureaux aussi soient des bureaux paritaires il faut que bureau yooyu bu tegee benn góor teg benn jigéen loolu dañ ciy veiller ñun parce que suñu challenge la ñoo ko doon xeex ba am ko qu'il n'est pas question que vraiment ñu feex fii à disposition boo xam ne avancé la ci Sénégal ñu bañ ci reculer li ci am solo aussi beneen loi majeure bi ñu wax ne nit ñi dañu leen di jigéen dañu leen di violenté ñu am ci position yu am solo ci communauté à la base la sensibilisation communication ñëpp jug pour loolu ñu mën ko teg fi ñu ko war a nekk accompagner cette dynamique pour wàññi bu baax les violences faites aux femmes ñu am ci lu am solo nag parce que defe naa la volonté politique aussi dafa am solo ci li nga xam ne mooy dynamique yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu initié barki démb gis nañ ko président de maa ngi koy félicité en passant bi mu jëlee la reine de l'Union africaine li mu wax ci discours am mooy seen engagement bi ñu defoon pour renforcer pour jàpp ci li nga xam ne mooy la lutte contre les violences faites aux femmes dañ koy dañ koy gën a dëgëral je pense que l'Union africaine woote woon benn rencontre bu am solo pour euh, vraiment définir seen position naka la ñu def pour jàppale pour renforcer li nga xam ne mooy lutte contre les violences basées sur les genre kon nous sommes à l'aise pour vraiment lutter ces violences parce que c'est la volonté la communauté ñëpp ñu ngi ci œuvrer pour l'homme on a l'arsenal juridique qui nous permet aujourd'hui pour wax ne képp koo xam da nga violenter nit jigéen bu mag ak bu ndaw loi bi dal sa kaw dañ ko criminaliser loolu avancée bu majeure la Sénégal am ko defe naa pays ku am seen àddina bi est-ce bari na waxuma nag en Afrique kon que loi boobu dañ koy fii donc je pense que lii am solo mooy ak ak fu jigéen ñi mu taxaw ci ba jigéen ñi vraiment ñu mën a protéger seen ay droits mooy li nga xam ne mooy économiquement le positionnement des femmes seen taxawaay ci économie réew mi ñu wax ko léegi les femmes son plus dans l'informel ñu wax ne li ñu avancer majeure la transformation du secteur informel bu ñu koy wax jigéen ñee tax ñu wax parce que bu ñu xoolee cinquante et pour cent de la population est dans l'informel 62 pour cent ce sont des femmes kon jigéen ñooñu elles dans la couture nekk ci restauration yi nekk ci coiffure yi elles sont dans la dañu leen formaliser dañu accompagner pour mu formaliser wu. ministre du travail wax na ko léegi am na jéego ñu ci def am projet yoo xam ne pour loolu sama ministère tam am na projet yoo xam ne dafa seen a jàppale jigéen ñi ci li nga xam ne lii mooy seen taxawaay ci économie bi. donc loolu stratégie bi ñu ci am la stratégie nationale pour l'autonomisation économique de femmes lu am solo la pour tënk li nga xam ne mooy intervention yi def yëpp dans ce domaine ko ci benn document boo xam dañu xam fan lañ jëm naka lañ fay demee ak yan moyens lañ fay demee. loolu moo tax stratégie bi jub stratégie bi jub kon ñu ngi félicité le Sénégal xam naa suñ ci wax du jeex ci avancé yi ñu am yi nga xam ne yi nga xam ne avancé yi ñu am dans le domaine des droits de la femme et aussi de l'autonomisation économique des femmes mais aussi fii boo fi toogee di wax comité sur l'élimination de discrimination à l'égard des femmes mun na question yoo xam c'est des questions sensibles mais nous sommes ñun on est à l'aise pour en parler parce que on à l'aise parce que amul dara dem suñu kanam président joxe na top bi wax na clairement ne Sénégal tant que mu ne président de du mës a légaliser l'homosexualité te fii ci réew mi posé nañu question est-ce que am nga ay cas yoo xam ne mën nañu ko identifier yoo xam ne ay cas yoo xam ne discrimination la pour ñi nga xam ne ñooy tey ñoom ñoom la ñu wooyee LGBTI ñun gisuñu ko Sénégal li ci gën a bari amuñu ay cas palpable yoo xam ne dañ ko enregistré pour mën ko wax mais li wóor mooy Sénégal suñu importe li bëgg ñun mooy suñu valeurs yi ñu am nos valeurs socioculturelles nos valeurs religieuses ñu teg ko en première ligne parce que loolu moo doxal suñu réew ba nëgën si comme moo doxal suñu réew ba dara du ko perturber ce n'est pas l'Occident ce ne sont pas les partenaires du kenn koo xam ne mun nañu dévier suñu voie ci li nga xam ne moom lañu gëm ci homosexualité au Sénégal le président était très clair te wax nañ ko léegi fii devant comité ñun li ñuy wax mooy àq ak yelleefu jigéen ñi mais ci àq ak yelleef bu ci bëggee dugal loo xam ne ñun suñu aada ak suñu àq ak suñu yelleef ak suñu taxawaay société culturellement et socialement le Sénégal mënul jël en compte cette discrimination parce que pour ñun discrimination même si c'est une discrimination elle n'est pas spécifique au Sénégal question yi am solo pour ñu jàpp nañu mooy jigéen ñi war a jàppale yiir leen renforcer seen leadership autonomiser leen économiquement pour ñu mel nekk ay femmes yoo ëllëg mën demal seen bopp c'est ça l'essentiel et c'est là la vision de son président le président ma Sall ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp merci